fi ñaari euh, place espace vert la bo xamné dafa nek fi nek feulé si taliba ñepp xam nañ ko ngor gep leeru lañ ne fi espace vert la bonte askan wi fii rek mo leen fi dese euh, booy xool poumon yi euh, ngor fi la ak fé air doxatul nax bâtiment yu kawé tey gii fi buñ ko tabaxé jongaraan espace amatu fi air amatu fi da gune yaangi ñew tamit amuñu amuñu fuñ fuñ fuñ fooyee dal amuñu tamit fuñ fuñ fexlo da ngay xol fi ni mu xaté ni mu mel donc looloo waral suñu wàcc see fii du intérêt kenn nag maire bi fi toog bu muy door a ñëw moo ko defoon ay garabi koko def ko espace ne ñu fii place publique la ah bi nekk si taliba te ñëpp xam nañ ne bi nekk si taliba collecté nañ ko def ko def si ay garabi koko noonu lañ defoon fii donc ñun nag ñu fi violence andiwuñu xeex ñu dara dañ taxaw fu wóor xam ne fii li ñu ko diggoon loolu lañ fi séntu te loolu lañ fi bëgg du ñu nangu it ñu ñëw di ko def leneen loo xamante ne di ko jox ay nit bàyyi ñi waruñu ko jël jox ko ay nit ñun ñu toog di ñàkk nañ ko def lu di jariñ ko def lu askan wi pour tracer ko ay pour xama xoxatal jaay ñu doole duñ l'autorité ne communique pas ne communique pas alors si l'autorité ne communique pas et que des tierces personnes viennent ici pour faire des prélèvements topographiques mais l'autre partie aussi a le droit de s'opposer à ça. Qui doit expliquer Qui doit faire la part des choses S'il n'y a personne pour faire la part des choses, c'est ça notre problème.